asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu 221 People dal leen jàmm comme ni ñu koy defee saa su nekk dëkk nañu fas yéene waxtaan yéen si xam-xam tey nag dañoo am gan gu rëy di boom xam-xam di kilifa bu ñëpp naw si biir réew ak si bitim réew muy sëñ Mbacke Lo sëñ Mbacke Lo ñun waa 221 People ñoo leen nuyu di la jox sa wàccuwaay di la bàyyi nga nuyatoo suñu mbokk internet yi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo leen di nuyu bu baax yéen waa 221 People ci seet si nga xam ne seet si ngeen ñu ko. ngir waxtaan ci wàllu xam-xam mhm. ak gindi nit ñi indiwaat leen mhm. loolu nag mu nekk loo xam ne dinañ ci sawar mhm. ndax tolluwaayu réew mi ak tolluwaayu jamono ji ndax réew mi soxna soxla na ñoo xam ne pour ñu génn wax delloo si nit ñi waaye tamit xam-xamit boo ko yoree itam jaadu na itam nit ñi seetsi la pour nga génn leeral ci ñi nga xam ne dañ cee war a mën a jariñu bu la suñ borom dimbalee booy la ñoom ñu jariñu ca loola ndax mbir boo ko yoree denc ko itam mhm. amul benn njëriñ ndax loolu mhm. taxut suñu borom jox la ko mhm. kon incha allahu taala ñoo ngi leen di diglu waaw sëñ Mbacke loo ñun bu ñuy jàkkaarloo dañuy am kontaan ndax xam naa jaam yi soxla nañ mais sama laaj njëkk ñu bëgg wàllu seet lu mën a seet lu ñu mën a wax seet ak lu njëgu ñu seet si nit waaw seet euh, bari na ay njariñ waaye seet dafa nekk loo xam ne bu bu ñuy wax dëgg-dëgg ñaan base bi mooy seet ndax li ñuy wax seet ki ko mënut mën nañ ne mënut dara. Mhm. ndax seet mooy buntu ñaan. Mhm. nit kenn mënu koo ñaanal wala kenn mën da xam nit ki wan yoon nga war a mën koo ba ñaanal ko. Mhm. te seetoo ay mbiram. kon seet bokk na ci li nga xamante ne nii ab sëriñ faw mu mën ko ba pare. door a wax nag. mën naa ñaan wala mënut a ñaan. waaye seet moom moo njëkk. ndax nit pour nga ñaanal ko wala pour nga mën a xam wan yoon ngay jaar pour ba dimbali ko ca yaajoom. foog nga seet ko. xam ba xam wan yoon ngay jaar sa diggante ak moom mhm. ba saafara ay tawatam mhm. ci lu mu mën a doon mhm. bu dee ay sarax yu mu war a génn la nga wax ko ko bu fekkee ay ñaan yu ñu ko war a defal la ñu defal ko ko man nag ni may jëfandikoo ci wàllu nit ñi ñëpp xam nañ ko man wàllu seet duma ci fayeeku seet duma ci fayeeku duma ci laaj nit benn dërëm ndax li may def xam naa ko te mën naa ko kenn duma wax seetal ma man la du yónnee ma lii wala yónnee ma la déedéet duma fayeeku ci seet dara dama lay seetal wax la li nekk ci yow. Mm-hmm. yow mi ma seetal wax la li nekk ci yow. Mm-hmm. di nga xam ba li ma la wax am na wala amut. Mm-hmm. loolu ku wóolu boppam rek moo koy def man duma laaj nit benn dërëm ci seet damay seetal nit ki ci wit wax ko mbooleem ay aajoom ak li nekk ci moom lépp nit nag bu fekkee da ko wax li nekk ci moom moom xam na bu fekkee waxoo ko li nekk ci moom moom xam na léegi nag moom nit ki itam bu fekkee wóolu na boppam ci yooyu yëpp muy def man fu sama tàmbali jëflante foofu la du ma fayeeku nit ci dara ci seet képp koo xam ne bëgg nga ñu seetal la incha allahu taala bu ñu ci jëflantee it dañuy jaar ci yoonu sedd mm-hmm. waaye man bala maa ñaanal kenn mm-hmm. dama koy xoolal ba pare mm-hmm. bu fekkee sama diggante moom suñu borom nar nañoo boole danaa ci xam dara bu fekkee nekkul nit koo xam ne man maa ko war a mën a ñaanal mën na ko demal nga xooli keneen ndax euh, yàlla dogal na ne ay ndaw lañ waaye suñu borom dimbali nañu teral nañu ci wàllu àddina kon lu ci bëree bëri fii ñu toll nii ci àddina daanaka euh, bëgg-bëgg gi moo ñu ci bàyyi xam-xam bi nga xam ne suñu borom dénk nañu ko ñu am yéenay partagé ko ak doomu aadama yi mm-hmm. waaye seet moom képp koo xam ne bëgg nga ko daal liñ ciy wax mooy ñu duñ ci fayeeku mm-hmm. foo mën a nekk ci àddina woowee mm-hmm. liñ lay laaj lañ lay laaj boo joxee information yooyu ñu seetal la wax la li nekk ci yow yëpp door lay mën a ñaanal waaw naa kuy werante wala nga am xel ñaar si seet da nga fekk dëggoo sëñ loo sëñ Mbàkke loo bu ma jógee foofu dafa am lu la bëgg a laaj muy wàllum nopp coow di bëgg na si kat moo war a jëfandikoo nopp si si boppam waaw noob bari na ay façon man boo xoolee wàllu noob sax lu ci baree bari ci la ma nit ñi gën a xam. Mm-hmm. wàllu nopp ci la ma nit ñi gën a xam. Mm-hmm. ndax damay jóge fii Sénégal di dem ci ay réew réew ngir loolu rek. Mm-hmm. des fois kenn nit rek moo may déplacé ngir loolu. kon loolu yaakaar naa dem naa ci ba wane ci ay preuve yu preuve waaw ndax bërki démb rek ci laa jóge Maroc. ñëw Sénégal nii te loolu moo ma yëkkati woon. kon yaakaar naa ne loolu amatul benn benn loo xamante ne dañ ko ciy pourfait wala dara. waaw man nopp gi may defal nit ki ñaari fan laa koy may. Mm-hmm. bu fekkente bu fekkente ne farata moo la tax a jóg. Mm-hmm. laa wax nag de waxuma kuy foo wala ku bëgg a caaxaan. Mm-hmm. mais bu fekkee nit ki farata moo ko tax a jóg deux laa ko may. bu fekkee soxnaam la dana ci jotaat. bu fekkee ku mu bëgg la mu ta dana ci jot. nopp du soxla ma ci yaatal yenn yaatal yi. ndax damaa dem ba àdduna bépp xam ma ci. yu ci bëree bu ñu ma gisee may wax boo xoolee li may def ay émission bëreetut. ndax euh, liggéey moom mm-hmm. boo yemee ba ñëpp xam la ci benn mbir nga xam ne foo ko tuddee rek mm-hmm. ñu xam ne yow la mm-hmm. jërëtul nga ciy nekk di wax wax wax ju bari ji waaw loolu moom suñu yëfa wàllu nag ku ko bëgg boo ñëwee fii dañ la wax conditions yi ñu war a mën a jaar pour ñu liggéey ci waaye nag du lu yomb waaw buñ la ko waxee boo ci nag nangee tagu incha allahu taala foo mën a nekk ñu liggéeyal la ko foo mën a nekk itam manis nañ la faa fekk ndax suñu borom dimbali nañu mën nañoo déplacé wu dem fu ne ci àddina bi loolu suñu borom teel nañu koo dimbalee mm-hmm. fu ñu bëgg dem tey bu ñu bëggoon a génn réew mi tey mën nañu fay génn mm-hmm. kon loolu xéwal la yoo xam ne suñu borom defal nañu ko mm-hmm. ñu ko ciy sant bu baax wàllu noob it képp ku ko bëgg rek bu buñ ci jëflantee incha allah dinañ la ci taxaw bu baax a baax moo xam nit ku weex la moo xam nit ku ñuul ku mën a doon waaw incha allahu taala yaanaa ku bëgg a nopp bu dëgg defal lépp bëgg a dëgg sëñ Mbacke loo neen nag képp kuy caaxaan nag jaw nga yegg si moom mais dafa feneen fu ma bëgg a dal dañoo nekk bu doy waa muy wàllum xëccoo benn bu am mbir bu amee sax ñaar fukki nit wala téeméer nit ñu koy soxla luñ mën a wax si xëccoo. waaw wàllu xëccoo moom dafa bari ay liggéey yu ñu ciy liggéey. Mm-hmm. maanaam nit ki kem la muy xëccoo rek mm-hmm. liggéey bu toll noonu lañ ko ciy liggéeyee. Mm-hmm. xam nga ki nga xam ne day xëccoo place. bokkut ak ki nga xam ne day xëccoo ay suuf. bokkut ak ki nga xam ne dafa xëccoo day xëccoo ngir bëgg jot réew. lu ci nekk ak dayoob liggéey ba nam toll. wàllu xëccoo moom lu ci nekk rek kem la nit ki di xëccoo. liggéey bu toll noonu lañ ko ciy liggéeyal waaye loolu duma ci def ak nit du ci du ma ci liggéeyal nit trois jours te la muy xëccoo joti ci mm-hmm. ñetti fan mm-hmm. te la ngay xëccoo joto ci bu ci téeméeri nit bokkoon doon xëccoo bu soobee yàlla gannaaw yàlla kenn mënu a jële kenn mënu la cee tee jot loolu uma ci werante moo xam réew la moo xam lu mu mën a doon ngeen koy xëccoo ci àdduna mm-hmm. buñ ci jëflantee du ma ci passé yow trois la ngay xëccoo ñëpp ña ngi ko doon xëccool danañ daw bàyyee la ko nga jot ci ci tekk ak tey mhm. wala nga jote ci ci neneen mhm. kon loolu du jar ñu ciy yaatal yenn yaatal yi ndax ñun mbooleem suñu boroom daf ñoo dimbali ci lenn mooy lu jafe jaab sëriñ muy dafa dem ba ay xeeti mbir yoo xam ne foo ko tuddee rek mhm. xel yépp day dem ci sëriñ Mbàkke Lo ndax yoo xam ne samay liggéey la bañ na ko ba da dem ci sëriñ sax ne ko lii laa bëgg mën la xaaral ma boole la ak diw ñu ci bëree bëri dañuy indi fii di leen boole man fekk faneen lañ jamoon ndax na ne ñoom it ñu nangu xam-xam bi nga xam ne suñu borom defal na ma ko ñu baree bari itam ñu leen indi ci man loolu ak sant yàlla la waaw xam-xam moom loolu rek lay jariñ boo gisee sa moroomi nit mu wóor na leen ne lii moo ko xam yow amoo ci xam-xam nga boole ko ñooñu loolu sant yàlla la kon yooyu moom dem nañ ba daal ñëpp xam nañ ñu ci ay mbir yoo xam ne foo ko tuddee ci réew mi wala fu mu mën a doon nit bu boo ko tuddee rek automatiquement ci ci man ci man lay xelam di dem kon loolu dañ ciy sant bu baax a baax. waaw jëmm ji mooy sëñ Mbacke. balaa bis bee dellu si ñu wàllu kayit waaw bokkut ak ki nga xam ne itam dafa nekk ca réew ma réew moom nekk mu bëgg fa ay kayit wala mu bëgg nationalité mhm. kooku itam waneen yoon la woo xam ne dañ koy jaar liggéey ko liggéey boobu sax moo gën a xaw a diis mhm. waaye yooyu itam ay liggéey la yoo xam ne yëpp suñu boroom defal lañ ci xam-xam mhm. ndax ñun yàlla dafa dogal xam-xam bi ñaamit dañ koo gëstu gannaaw bañ ko doon donnoo dañ koo gëstu def jàngi ko tërbiyewu ko ba suñu borom defal ñu ci lim ciy defal ay ndaw lañ de waaye dañoo teel a takku dem wuti xam-xam xëyuñu xëy rek toog moo tax it tey képp koo xam ne itam maase nga ak ñun rek bàyyi nga ñu xel. Mm-hmm. ndax suñu borom defal nañu lépp ci àddina amatul lu ñuy kurfe. Mm-hmm. amatul lu ñuy bëgg. Mm-hmm. lépp yàlla defal nañu ko te ci lépp gannaaw yàlla. ci lii ñu suñu borom jox ci lañ ko amee. des fois nit am ajo joo xam ne nga taxawu ko ca mu pare la ngeen waxante woon mu dubli ko fukki yoon jox la ko loolu sant yàlla la waaw kon wàllu kayit képp koo xam ne itam itteel na la rek boo ñu woowee dañ la ci taxaw bu baax ci numéro yi ñun moom képp ku ñu woo amaana jafe naa jot de waaye boo ma woowee man ngay jot direct mhm. bu yàlla dogalee nga man maa jot man mhm. ngay jot direct man mhm. nga may woo ay yoon yoon nag doo ma jot mais bu yàlla dogalee nga nga woo ma man ngay jot direct amut kenn koy jot maa la lii ak lii waaw bu yàlla dogalee war maa jot man ngay jot direct may wax ak Mbacke Lo yow mënuñu jàkkaarloo yow te laa ñu la si tolluwaayu réew mi ndax tey ñu bëri jaaxle nañ yow loo gis ëllëg Ousmane Sonko ak ñi am njort lu bëgg ne réew bi dafa naka taax loolu ñu mën a wax si loolu. waaw xam nga man tolluwaayu réew mi réew mi moom d'abord li ñuy njëkkee mooy ñaan fi jàmm. ndax bu fi aw ay ay aw ay amee. ñun ñii ñëpp kenn du ci mucc. li ñuy mooy ñaan fi jàmm. waaye ëllëgu diwit maanaam ëllëgu Sonko wala kum mën a doon. ñun wàll googu loo xam ne yegg seegu duñ ci wax. ñun ay citoyen lañ comme ñëpp. ni ko ñëpp nekkee. donte itam am na ku ñu àndal mais duñ ko fësal. mais gis nga dal si réew mi. waaw réew mi ak dal lañ fiy ñaan moom la ñuy ñaan yàlla mu def ko fi man moom ni ma ni ma bindoo ak ni ma yàlla bindee. Mhm. du ma faral di wax ci yoo xam ne lii mooy xew. Mhm. lii mooy am mhm. ndax loolu sunu borom rek moo ko jagoo te sunu borom maanaam même bu ma ko xamaloon ni du ma génn di ko wax. loolu man euh, duma ko du ma doxee noonu. du ma doxee noonu lu ma suñ borom mën a xamal ci àddina su ma ci mënee def ay solution ma def ko su ma ko mënta defit ma toog noppi mais duma ko wax ci kaw ne lii mooy am wala lii mooy xew wala lii waaye réew mi nag ñoo ngi fiy ñaan jàmm waaw élection nag nekkul loo xam ne xuloo ak xeex moo ko mën a jox nit ndax liy fal ak liy folli mooy ay carte mhm. kon jàpp naa ne ñëpp war nañ leen a mën a woo ci ak dal mhm. yeewaat leen indiwaat leen kenn ku ci nekk bu ñu demee ba ca bisu élection yi nga xool ka nga faral. Mhm. nga yëkkati sa carte wooteel ko. Mhm. loolu yaakaar naa moo ëpp njariñ xeex ak xuloo. Mhm. dañ bàyyi ñëpp kenn ku ci nekk ñu bàyyi lañu nga libre. ñu bëgg a dem dem. loolu ya yaakaar naa ne itam lu mën a indi jàmm la ci am réew. waaye am réew bu ñu bu demee ba seetlu ne ñii dañ leen di final ñii lañu ñu may jàmm rek boobaa mën naa indi ay jeex jaaxa yu rëy a ci réew mi. te loolu kenn ñaanu ko yàlla. kon nañu ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm. def ci réew mi jàmm xam naa ne itam xat-xat yi ngeen ma xaw a fekk ak euh, jamono bi ñu toll moo waral émission bi duñ ko duñ ko mën a def mu gudd waaye xam naa dañ koy reprendre defar ko duñ duñ ko mën a guddal yenn gudd yi kon xam naa foofu la ñuy tënk rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu